دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس عقل وحكمة مسخروا ليها عقل وحكمة مسخروا ليها دعوة ربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي يبارك borom bi tabaraka wa taala nee na fa ida faraxta fansab wa ila rabbika farxab ñaari laay yu gàtt yooyu yi daanaka dafa làmboo lii ñuy wax lépp fa ida faraxta mooy soo jullee ba noppi fansab demal nga sonni ca liggéey bu àdduna ba soo jullee su la waxee ne julli moo tax ñiy wax fii jàppal ne jaamu yàlla yépp ci la soo jullee soo wooree soo demee aji ba ñëw soo joxe sa asak loo noppi lu ne daal nee na fan sob dellul ca liggéey ba nag te nangoo sonn bu dee tool ba dellul ca tool ba bu dee usine ba dellul ca usine ba bu dee bitig ba dellul ca bitig ba nga ne ko ah waaw ndax su ma xasee julli nag ba noppi ba dellu ca liggéey ba damay continuer rek doon nitu àdduna ba keru julli di jotaat mu ne déet wa ila rabbika farxab foofa mën a nekk fu nekkat la ngay def na sa xel même téef ak sa jubluwaay sa objectif na nekk ngërëmul sa borom tabaraka wa taala kàddu yu gàtt yu fees dell fa ida faraxta fansab wa ila rabbika farxab al imam al mawardi muy borom xam-xam boo xam ne delluwaay la ci yu mel ni yii ñuy wax ak lu dul lii sax maawardi nit la koo xam ne ku ku ku ku doy waar la wet goo ko làmb fu nekk rek da ngay gis ne kooku nekkee moom imaam la foofu léeg-léeg muy nga di ko jàngal muy wax loo xam ne yow da ngay jàpp ne kii tey jii lay wax tey ci wàllu xabaa yàlla dafa dogal ñu dem Espagne bokk ci benn mutamar boo xam ne day wax ci wàllu xabaa ma bind benn waraqa boo xam ne mooy almawardi qaadiyan maanaam effort yi nga xam ne moom la def ci ci ci wàllu atte seen waxtaan yi foofu tubaab yeeg ñëpp a ngi toog secrétaire général ministère de la justice ma nga fa bi ma pare moom moo jëkk a jël parole mu ne moom xamul woon ni jullit yi tey am na ci ñoo xam ne nii la ñuy xalaate ci wàllu justice xamul woon ne l'islam àgg na ci bii niveau daal di cay teg ne am na beneen congrès bu gën a mag boo xam ne danañ ko organiser ci weer yi di ñëw docteur bala ngaa dem na nga ñu joxaale adresse u Mawardi pour ñu mën ko invité mu ñëw ci congrès mu gis nit ñëpp di ree mu ne lan la ñu ne ko kii bi mu faatoo léegi ëpp na juróomi téeméeri at mu ne déedéet mu ne kon lii ñu doon wax ku ku doon dund ay seekal ci gannaaw mënu koo wax tey waaye Mawardi noonu noonu la mel rahimahullahu taala moo ne li anna man salaxat xaalatuhu maa fasaadi dunia wa ixtilaafi umuuriha lan yucdama an yataadda ilayhi fasaaduha nee na ki fexe ba ay mbiram baax mu ne man daal jaamakatu yàlla laa dugg ci ruqam salaxat xaalatuhu maa fasaadi dunia bàyyi àdduna nag lépp yàqu mu ne sama yoon nekku ci man àllaaxira ma tax a jóg nee na du ca mën a mucc du ca mën a mucc lan yoodama an yataadda ilayhi fasaduha fu mu mën a dugg ci ay ruq ak ay zawaayaak foo mën a làqu ne damay jaamu yàlla yàqute gàdduna boobu dana la fa fekk parce que da nga toog ba mu yàgg nga jóg aajowoo loo xam ne mënoo koo bañ a am da nga aajowoo loo xam ne mënoo koo bañ a am nga jóg di ko wuti fax tàbbi ci njaaxum rawante ne ñi nga xam ne dañoo beru société bi ba xamuñu lu fa xew ne dañoo tëju ñooñu bis bu ñu jógee dugg ci société bi ba ñuy tàbbi ci njaaxum duñ ko yëg ki yaroo ci biir société bi doon doomi société bi di dugg di gis yëf yi di dellusiwaat xàmmee li baax ak li bon kooku yàlla dana ko may ci dëgër loo xam ne ki ñu tëj fi benn béréb ne dañ koy defar te xamut lu xew ci bitti du ko am moo tax léeg-léeg daara yi internat yi loolu lu mat di bàyyi xel la léeg-léeg léeg-léeg internat boo xam dañuy tëj xale bi béréb boo xam ne xamut lu fi tew ma ngay dund nag dund gu sell jàng alxuraan bu dégg bëccëg julli ay askar wax ju baax rek lay dégg jàpp na ne àdduna nii lépp la nii rek la mel bis bu jeexalee ci daara ji nag ñu ne ko cëpp ci biir société bi nag muy geesu di gis safaanub lam doon gis di dégg safaanub lam doon dégg lan moo koy téye ba du tàbbi ca yooya lu mu gis lu ne dana ko bëgg a essayer ndax lu bees la ci moom lu mu gis lu ne dana ko jéem a essayer moo tax mën naa tàbbi ci càcc mën naa tàbbi ci fab lu muumut mën naa def ay njaaxum fekk la ko waral mooy miinul woon société bi la doon yoon la mooy di génn di gis li xew ci biir société bi di jàngee di dellusiwaat ñi lay tarbiyee ci lu baax la moo tax jàpp naa ne wet googu ci wàllu internat yi war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax am ay école yoo xam ne gone gi day génn jàngi publiquement comme ñëpp di xam li xew dugg ci biir société bi di dégg li ñuy wax bu del see ñu yar ko mu xam li baax xam jikko yu rafet man koo comparé ak yu ñaaw yam gisoon bu gisatee lu ñaaw ne ah lii day la ma dégg fële ko gën ci loolu lay yaroo ba doon doomi ab société moo tax mu ne su fekkee ne daa dugg ci ruqam ne man saa mbir baax na sama yoon nekkul ci société bi nee na bàyyi société bi muy yàqu nee na du ca mën a mucc moom ma làqu wa yaqdaxu fiihi ixtilaaluha nee na yàqu boobu yi nga xam ne société bi yàqu na du ko bàyyi mukk mu mucc faaw mu faaw mu dal ko li annahu minha yastamiddu nee na àdduna jooji mu fase ba làqu fi biram nee na bu mu fàtte ne lu mu am lu ne ci àdduna jooji la ko jële la ko tàmbalee ca la muy sol ba ca la muy lekk ba ca léppam fii moom àdduna la kon jëflanteeg moom munta ñàkk waaye nag nga jaar ci yoonu jub bi loolu mooy wax ji mu teg ca ne wa man fasadat xaaluhu maa salaaxi dunia keneen a ngoog koo xam ne kii moom ay mbiram dara baaxu ci ku dëng la waaye société bi mu nekk rek société bu baax la wa intizaami umuuriha lam yajid li salaaxiha laddatan wala li istiqaamatiha asaran mu ne ki nga xam ne moom dafa dafa yàqu carrément ay jikkoom yàqu na diineem yàqu na te fekk société bi muy dund société bu baax la ñu juba fa nekk lépp lu baax la nee na njub googi du neex ci moom day naqari ci moom lool du ko tudde sax ak njub du am wenn jeexit ci moom ci ci shaqaawa lay dund ci métit lu tax mu ne li ann al insaan dunya nafsihi kenn ku nekk la ngay dund ci sa biir loola mooy sa àdduna yi kon ki yàqu moom àddunaam yàqu na donte àdduna ji ko wër baax na àddunaam yàqu na xoolal loolu ka doon jéem a baax àdduna yàqu dana ñëw yàqaale ko ki boroon moom àdduna baax du tax àdduna defar ko loolu loolu jafe-jafe la kon loolu moo tax la am solo mooy nit ki na jéem a baax na jéem a baaxal àdduna itam tawaasun bu baax ba mooy nañ defar àdduna defar àllaaxira yow sa àdduna mën nga koo defar ndax kat yow yaay sa àddunay bakkan ni mu ko waxee leen al insaan dunia nafsi mën nga koo defar defaraane ñi ñëw ci ponk ñetteel bi alqaida thalitha muqabalatu al ihsaani bi mislihi muqabalatu al ihsaan bi mislihi ki rafetal jëme ci yow nga rafetal jëme ci moom loolu mooy tolloog wa ahsin kama ahsana allahu ilayk borom bi nee na wa ahsin rafetalal kama ahsana allahu ni yàlla rafetale ilayka jëm si ci yow ni yàlla rafetale jëmee ci yow yow itam rafetal jëmee ci yàlla wala nga jëmee ci bindeef bi dana leer bokk na ci maandute bokk na ci njub muqabalatul ihsaan bil ihsaan nit ki rafetal jëme ci yow nga rafetal jëme ci moom lii de moo dig maandute moom la yàlla digle mooy wa ahsin kama ahsana allahu ilayk waaye bokk na ci jikko yi baaxut wala sax jikko yi nga xam ne duñu wax ne baaxut waaye àggut ci martabab ku def lu rafet jëme ci yow nga def lu rafet jëme ci moom mooy muqabalatul isaati bil isaa ku ñaawal jëme ci yow nga ñaawal jëme ci moom loolu day jikko la joo xam ne xëy na diisu ko ŋàññi waaye diisu ko tagg yit na ku la ne lii nga ne ko lii bu la waxee lu ñaaw nga wax ko lu ñaaw bu la defee lu ñaaw nga def ko lu ñaaw ah kenn du la ŋàññi ndax moo la ko def waaye nag kenn du la tagg itam de nga xool beneen bi kii ñaawal na jëme ci yow nga rafetal jëme ci moom kooku mooy maqaama bëgg na kawe kii def lu ñaaw jëmale ko ci yow yow ngay def lu rafet di ko jëmale ci moom kii wax lu ñaaw jëmale ko ci yow ngay wax lu rafet yow jëmale ko ci moom loola mooy melokaan wa gën a kawe am naa nag kii def lu rafet jëme ci yow nga def lu ñaaw jëmale ci moom foofu mooy ku la gën a suufe jikko ji gën a suufe nekk taxtal aqdaam mooy nit ki rafetal jëme ci yow nga ñaawal jëme ci moom kon ñeenti muadala la rafetal nga jëmale ci ki rafetal jëme ci yow loolu yàlla tagg na ko mooy tolloog laay ji wa ahsin kama ahsana allahu ilayk nit ñaawal na jëme ci yow nga ñaawal jëme ci moom kenn du la tagg waaye kenn du la ŋàññ itam nit ñaawal na jëme ci yow nga rafetal jëme ci moom boobu mooy bi gën a kawe moom la ñu baax ñépp bëgg martaba bi gën a kawe waaye bi gën a suufe nag mooy nit di rafetal di jëme ci yow ngay ñaawal jëme ci moom te it am na ñoo xam ne nag noonu lañu mel am na ñoo xam ne noonu la ñu mel borom bi tabaraka wa taala ni ma ko waxee ca bi ñuy tàmbali waxtaan mooy kenn ku nekk ci noonu labal na la ci biir géej goo xam ne lépp ak rafetal gu jóge ci yàlla jëm ci yow la muy xéewal yim la jox du jeex loo jéem jéem jéem a def ngir fay bor boobu yi muy xéewal yiñ la jox ak liñ la jox ci ay moyens yu mën a def lu baax du tax mukk nga mën koo matale waaye borom bi tabaraka wa taala daf nu jàngal juróomi aaya yoo xam ne lu bari dañ koy jàng wa ahsin kama ahsana allahu ilayk nan lañ koy appliquer dafa wax akub yonentam ci suuratu duha nan la ñuy defee loola borom bi tabaraka wa taala muy wax ne wa ahsin kama ahsana allahu ilayk xam nga boo settantalee aaya ji dëgg dëgg dëgg néewul wa ahsin ila allahi kama ahsana allahu ilayk néewul rafetalal jëme ci yàlla ni yàlla rafetale jëme ci yow waaye dane na nga rafetal ni yàlla rafetale jëme ci yow kon sama rafetal gi fan lay jëm ci kan lay rafetal loolu la jàngal ab yonentam nag ci suuratu duha borom bi daa wax moom nan la rafetale jëme ci yonent bi nee na ko alam yajidka yatiman fa aawa di sa borom moo la fekk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nekk ab jirim mu fat la kenn ku ne ci yéen jàng ngeen siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu fekk bàyyam génn àdduna at yu néew waajuram bu jigéen génn àdduna mais téewul yàlla tàggat ay loxo yu ko fonk yu ko bëgg na ko ay waajuram bëgge muy ay maamam ak ay bàyyitaxam ak aw askanam famille ñépp taxaw di ko sàmm di ko défendre ba mu nekk mu kàllaf kon alam yi jiddi ko yatiman fa aawa di dalaa fekk nga nekk ab jirim mu fat la ñaareel ba mu ne ko wa wajadaka dallan fahada bi nga demee ba nekk mu kàllaf fekk na la nga doon ku réer mu gindi la réer ga mooy lan moo di dem na ba yëg ne moom mii li ne ci xolam mooy bëgg naa jaamu yàlla mu di ko làmbatu nag di wër lu mu jàpp ne lu baax la mu jëm ca loola di génn yéeg ci montagne yi di fa tàndale di def ay jaamu yàllaam ca nam yaakaari ne noona la di tudd yàlla ca nam yaakaari ne noonu la waaye dara wàccut ci moom lu naan ko lii noonu la wala du noonu lam ñuy fortaate rek mooy jeexee de desoon ci diini ibrahima alayhi salaam mu di ko jëfandikoo di génn ci doje di ñaan ak a tàllal ay loxoom ba mu yàgg yàlla yebal malaaka mu tàmbalee wàcce ci moom alquran hidaaya ba ñëw nag moo tax borom xam-xam yi dañ koy firee ne alam yi jiitu ka wa wajadaka daallan mu fekk la nga doon ku gëlëm fahada mu gindi la maanaam da ngaa gëlëmoon di làmbatu ana lu yàlla bëgg ci man mu gindi la wàcce ci yow alquran wàcce ci yow sunna won la yoon wi nga xam ne moom la yàlla soxla kooku kon yàlla mi ngi koy wax mi ngi koy wax foofu rafetal gi nga xam ne yàlla rafetal na ko jëme ci moom fekk na ko mu doon jirim fat na ko fekk na ko mu doon ku gëlëm wala ku réer gindi na ko ba mu jaar ci siraatul mustaqim mu ne ko wa wajadaka ailan fa agna fekkoon na la nga doon ku ñàkk mu jox la am koom mu jox la am koom maanaam ba nga woomal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci siiraam jaar na ci ñàkk bu metti moom ak njabootam dem nañ ba lay wax ne weer ak ñaari weer daana romb këram te cin du fa tàkk luñ daan lekk mu ne al aswadaan ndox tàndarma koy lekk sa ñetti doomi tàndarma naan sa ndox dem liggéey wala nga dem ca sa yitte kon loolu metti la alayhi salaatu wasalaam daana tëdd ci ak basan di ca fanaan ba day xëy ñu gis ni mu marqué ni mu marqué ci wet gi ñuy gis basan boobu ni mu mel ci moom dem nañ ba situation soppiku adduna dugg nañ ci lislaam asaka yi dugg si nañ baytul maal ganaim yi dugg si nañ baytul maal baytul maal alal ju bari nekk na fa kon beneen situation ñëw na mooy ànd ak ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam musta dund moom dundu ku riche mus koo dund bi alal yi sotti ko it dund nga kay nam sotti ko mooy mën naa dimbali nit ñi la cay firnde mooy ci saxiwul buxaari yonente bi alayhi salaatu wasalaam am nay jamono bu nit faatoo bala koo jullee day wax ndax am na bor buñ ne waaw ndax am ngeen lu ko fay ñu ne déedéet lu mu cay teg sallu ala saaxibikum sooy boo ngeen jullee ko kët man mënumaa jullee ko yor bor te ma ne su koo fay daal di ko fay bàyyi ña ca des jullee ko denc ko waaye dem na ba jëmmi jamono mu ne leen ku bàyyee ci bor wala nga bàyyi ab jirim gàddu naa bor ya gàddu naa jirim yi xanaa kon situation soppiku na nekkatul ci faq kon wa wa wajadaka ailan fekkoon na la nga doon koo xam ne ku ñàkk la fa aghnaa mu wàcce ci biir sa ñii nga jiite alal ba lépp loo soxlaa financé te mën nga ko financé ah lii de wax dëgg yàlla yu rëy rëy la ndax mooy li dundub doomu aadama aajo woon ginnaaw da ngaa tumuranke woon ñu faat la ba tumuranke nga jeex ci wàllu diine nga nekkoon ci ngëlëm te ñu gindi la ci wàllu alal nga xam ne mooy mooy bi ñu jëfandikoo ci àdduna nga ñàkkoon ko lool yàlla jekki-jekki andil la ko yett yi ay xéewal yu rëy rëy rëy rëy la ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxanteeg moom ne ko yett yi yàlla defal na ko defal na la ko kon li ca tegu nag wa ahsin rafetalal rafetalal maanaam fayal bor nu may faye bor mu ne ko fa amal yatima fala taqhar bul mas a gëdd ab jirim jirim ñëw ci yow nga di ko wax wax ju ñagas bu mu am waaw loolu lu tax du am ndax alam yi jidi ko yettiman fa aawaa démb dala fekkoon nga doon ab jirim mu fat la kon bul dem mukk ba àdduna soppi ko ba jirim taxaw ci sa kanam nga di ko wax wax ju dul noonu kon wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wa ahsin ila al yatama kama ahsana allahu ilayka wa anta yatim da ngaa doon ab jirim yàlla taxawu la foo gisub jirim taxawu ko kon xanaa kon rafetal gi yàlla wax ne na nga ko rafetal faye ko sa boroom xanaa kon ci mbindeef yi la jëm ah yettiim day ci mbindeef yi la bokk moom kon li la yàlla defal soo ko ko bëggee fay fay ko ko ci mbindeefam yi nga xam ne mooy ay jaamam lu ca tegu wa amma saaila fala tanhar daf ne fa amma alyatiima fala taqhar bul ko not mukk wa amma saaila fala tanhar bul ko gëdd wa amma saaila foofu la balaaxatul quran di feeña dëgg dëgg nag saail dafa yor ñaari maana ki ñëw di laaj si ab xam-xam di laaj masala kooku saail la tudd daa ñëw di laaj ki ñëw taxaw fële di yalwaan naan mastata wala man kaana lillahi kaana allahu lahu kooku saahil la tudd moom itam benn baat bi ci la ko tontoo ci ñaari ixsaan yooyu nga xam ne yàlla def na ko ci moom wa amma saaila ki ñëw di la laaj masalam diine fala tanhar bul ko mas a gëdd lu tax mooy wa wajadaka dallan fa hada démb da ngaa xamul woon dara di làmbatu yàlla génne la ba nga am xam-xam kon bu nit ñëwee di laaj xam-xam ni nga mën a faye sa boroom rafetal boobu mooy ki ñëw di wut ci yow xam-xam nga jox ko xam-xam boobu ba tey wa amma saaila fala tanhar dangaa dooroon ku ñàkk démb ko wajadaka ailan fa axna dangaa dooroon ku ñàkk bu nit ñëwee di laaj alal nga yor dara moom it fala tanhar bul ko gëdd na nga ko jox su ko defee fayee ko la la yàlla defaloon démb xoolal lii wa ahsin kama ahsana allahu ilayk xulaasatul kalaam foofu mooy rafetal gi yàlla def ci yow du jeex foo xool fu nekk am nga bor boo xam ne yoreel nga ko sa borom war koo fay nu ma koy fayee ci bindeefa bi gannaaw boo xam ne jox ko xaqam jàll na ci wéetal ko ak jaamu yàlla yim la sant nga nekk ca des na beneen ixsaan nag boo xam ne da nga ko war a fay mooy bindeefam yi nga rafetal jëme ci ñoom kenn ku nekk na mu la dikkee boo xoolee da nga gis ne yàlla am na nu mu la dikkee noo xam ne soo ko fayee bor da nga jàppale koo kii taxaw ci sa kanam moo xam ku ñëw di laaj xam-xam la moo xam ku ñëw di laaj diine la moo xam koo xam ne yàlla da koo nattoo lu mu la nattoo mën naa doon jërim mën naa doon ku lompañ mën naa doon ku tële su ko defee la yàlla def ci yow ba nga man te moom mënut nga jéem ko def ci moom ndax nga jàppale ko kon xoolal xoolal kon wa ahsin kama ahsana allahu ilayka li muy liggéey ci biir ab société société boo xam ne dem nañ ba dund loolu nga xam ne kenn ku ne li nga yëg mooy man de ku ma tane ku ne war naa laa jàppale ca la ma ko tane ku ma tane ku ne la ma ko tane war naa ko caa jàppale bépp société boo xam ne mi ngi dund loolu ay problème am dana néew ndax kat askan wu nekk bu la neexee nga ne réew mu nekk la ñu soxla woo yàlla wàcce na ko fu ba mu doy sëkk na mu koy joxee nag day leen di nattu day jël docteur jox ko milliard jël kee jox ko fukki dërëm ñu bokk nekk ci biir dëkk bi ma ngay natt borom fukki dërëm yi ba xam dana muñam déet waaye mi ngi natt docteur ba xam dana sant yàlla déet nu mu koy sante mooy gëstu ba xam ne jiw sàngam mii bu añee du reer te lim yor ci ngor lim yor ci ab sac tax na mënta taxaw fi nit ne ko man nangam laa soxla ñi taxaw ci mbedd mi yalwaan yor seen mbuus seen mbir jafewut rafetal jëme ci ñoom lu yomb la boo leen rombee fukki dërëm sax boo ko joxee ñu ne ñu sotti loo xeer waaye ki ne ci koñ bi amut lum reere damaa ne amut lum añee te du ko mas a wax nit fan ngay jaar yow mi yàlla jox ba nga am ba xam ne diw sàngam mii soxla na ku ko jàppale nga gëstu ko ba jàppale ko foofa la yëf yi nekk kon société bu mel noonu ma ne société bi dund wa ahsin kama ahsanallahu ilayk problème dafay jeex day saafaraw maanute dafay tasaaroo justice sociale dafay daal di tasaaroo jarul ñuy def ay conférence jarul ñuy def ay ay dajale ay nit wala taxawal ay mbootaay dara du ko jàpp société bi daal ñi ngi dund lool seen jàmm day daal di wàcc ci lu dul wax ju bari ba àddunay baax asalafu saalix noonu lañ doon dundee am na koo xam ne ci biir madina ci jamono yi nga xamee ne zeyn ibnul abidin mi ngi dund muy sëtub ali ibn abi talib dafa am kër goo xam ne njaboot bu takkoo fa nekk doon ay ay ay xale seen yaay nekk fa seen papa faatu xale yi mën a ku ñëw liggéey jigéen ñi mënta génn di liggéey waaye semaine bu ne daal dana gis ne buntu këram bu yeewoo di julli fajar dana fekk ñu wàcce fa ab saaku bu diis boo xam ne saaku fariñ liñ ko mën a tudde ndax lu ñuy defare mburu la te seen dund ci jamono yooyu mburu la jël weccet bokkaale ko ca biir boo xam ne yañ soxla danañ ko ci mën di jënd semaine bu nekk te xamut lii ku koy def bi Zeynul Abidin faatoo am ñaari mandarga yu wane ne moom mii moo ko doon def benn bi mooy soxna si ñaari semaine dafa jàll gisatut la mu doon gis mu ne kon ne ki ko doon andi dafa génn àdduna beneen bi mooy ñi ko doon sang dañoo gis ci gannaawam ab ñuul ñuul bu bu yaatoo yaatu boo xam ne xamuñu lu mu doon ñu laaj waa këram ñu ne leen moom day dafa daan am saaku boo xam ne da koy gàddu fajar bu nekk semaine bu ne dana ko gàddu te saaku bu diis la te ku ko ko bëgg a jëlal ne ko bàyyil ma yóbbu ko day bañ lam ci jubluwul mooy am na buntu kër bu mu ko daan teg ngir seen borom man koo jëriñoo loolu moo indi ñuul ñuul yi nekk ci gannaaw xam nga ne yëg-yëg boobu ci biirub société mbokk yi lu mat a dundal la ci sun sun diggante société boo xam ne lépp dafa taxaw ci xëccoo li nga yor yow sax amaana man su ma xëyee ba ngoon fan laay jaar ba li nekkoon ci sa loxo jóge ci sa loxo ñëw ci man su fekkee yëg-yëg boobu la nit ñi yëg ci société bi keneen ka yëg ko ci man keneen jekki ba mu yàgg ma ne wax diw mi lu tax mu am lii te man awma lii société la boo xam ne mi ngi lekk boppam mi ngi dellu gannaaw te yëgu ko ndax koom mi gën a rëy koom mi gën a rëy ci ab société ñaari mbir rekk la jàmm ak dimbalante jàmm ak dimbalante su jàmm amul kenn du mën a def dara gis nga réew yi nga xam ne nekkuñu ci jàmm kenn du leen ñee kenn du leen ñee ñee ca demoon ba àgg ci émergé nga xam ne développé nañ seeni réew réew yooyu yàquwaat la ba dellu juróom fukki at ca gannaaw nam meloon far yées na ko sax far am na ci réew yi ko yées boo génnee sa kër bala ngaa del si ne boo tul bomb dana tàkk du ma del si waat kon ki yàlla may jàmm muy xëy ci këram di waaxu di dem ci liggéeyam di del si waat déggul bal tàkk déggul musiba gisul lenn lu koy tiitloo ak lu koy xoqtal kooku am na ponk bu mag ci am réewam jëm kanam beneen bi ci des nag mooy boobu yi mooy dimbalante ki ñaan gi ak yi nekk ci xol yi ak lu tax diw am nangam ku yor dara sax loo xamul nga ne kii di boo demee fa mu ko jëlee da koo jalgati melokaan yooyu fexe ba raxas ko ci xol yi ak làmmiñ yi kenn ku nekk yéene sa morom li nga yéene sa bopp loolu mooy jëmale mooy teg ab société ci condition yoo xam ne ci jàmm dëgg dëgg dëgg dëgg la ñuy nekk ñeenteelu ponk bi te mooy bu mujj bi moo di mujaanabatul fasaadi wa muharabatuhu mujaanabatul fasaad wa muharabatuhu mooy tolloo wala tabgi fasaada fi l ardi inna allaha la yuhibu al mufsidin kon ponk ñeenteel bi tey bu mujj bi mooy xeex yàq xeex yàq borom bi nee na wala tabri bul sàkku alfasaada yàq fil ardi ci suuf lu tax mu ne inna allaha la yuhibbul mufsidin yàlla bëggul kuy yàq yàq nag dafa am forme yu bari yu baree baree baree bari am na yàq boo xam ne fasaadul aqida la pas-pas bu yàqu mooy yàq gi gën a rëy ci kaw suuf mooy fekk loo xam ne yàlla moo ko moom nga jox ko mbindeef moo tax borom bi nee na wala tufsidu fi l ardi bada islaahiha wa duuhu xawfan wa tamaan inna rahmatullahi qaribun min almuxsinin nee na bul dox ci kaw suuf di yàq gannaaw boo xamee ne yàlla defaral na leen suuf si ba mu baax ba warees bee mën a nekk di defar nee na kon bu leen wàcc ci kaw suuf si di yàq ñu ne ban façon yàq mu ne xanaa yàqu ñàkk jaamu yàlla wala yàqu jaamu yàlla boole ko keneen wala leneen di ko jaamu moo tax mu ne wadda wuuhu na ngeen ko jaamu xaw fan su ngeen nekkee ci tiitaange wala ngeen jaamu ko ragal ko moom suñu borom fekk ragal gi ma tax nga koy jaamu wa tamaan ak xemmem la nekk fa moom maanaam jaamu leen ko fekk da ngeen a ragal sawara fekk da ngeen a xemmem ajjana noonu la ñuy jaamu yàlla mu teg ca ne yërmaande yàlla dafa jege ñi nga xam ne dañuy rafetal ñiy rafetal yërmaande yàlla daf leen a jege bokk na ca fasaad mu yàq goo xam ne dafay sukkandiku ci li ñuy wax gaspillage mooy li li askan wi di fàggu duñ ko ñoŋal xanaa dañ koy yàq yàq nag ci li delloo gannaaw am réew ci la bokk su nit ñi d'accord a farlu gën a farlu ci mën a fàggu alal waaye luñ fàggu ba ëllëgee ñu yàq ko am réew du ma sa jëm kanam xool ko ci sa kër yow su fekkoon ne sa salaire daa nekk ñaar fukki junni waaye foo dégg ay caaxaan lamb po ay tudde nangam nga yóbbu cinquante mille yi joxe foofa daje kenn mu daal di tudd say maam rebatu yow de yaa defoon nangam nangam nangam nangam def nangam nga dindi vingt cinq mille yi jox lu ca des vingt cinq mille francs boo demee yaa nga luyee fa nga dëkk cent mille francs war a lekk war a naan dama ko joxe misaal waaye kuy def noonu bu ay million doon tege ci sa loxo weer wu nekk te amul contrôle bi mu war a am lenn lu nekk dugg fa mu war a dugg ci ñi gën a ñàkk ci nit ñi ci ngay bokk ànd ak nit wërsëg bu bari mi ngi tàbbi ci sa loxo loolu ni mu doone misaal ci nit ki ci ak këram noonu la man nekke misaal ci population yi ci seenum réew ci seenum réew su fekkoon ne yàlla sottil nanu xéewal yi ëpp ci xéewal yi waaye dem di jox ci xéewal yooyu ci ñetti fan lañ koy faagaagal yàq ko ci ñàkk la ñuy dëkk ak ci ndóol léeg-léeg ay xew-xew am ci sunu biir yoo xam ne la ñu fay faagaagal ci ak jur wax naa ko ba tàyyi la ñu fay faagaagal ci ak jur lekk ca lañ ci mën a lekk ci biir si ñaari fan ñetti fan la ca des tàmbali yàqu ñu dem tuuru jikko nga xam ne ay nangami junni bopp ci ay naga ki xara ki bëy ki gëléem sax léegi kooku du kéemaan Sénégal toog bu tabaski jotee dañuy dem wuti ay xar dañuy dem Mauritanie wuti ko wala Mali suñ ko defut duñ ko am lu tax parce que dañoo yàq suñ li nu yàlla joxoon gaspillage la waaw ñooñu lu tax ñu mën na koo jox dañ doo gën a bari jur déedéet kenn gënuloo bari jur waaye danoo yàq suñu jur te ñoom yàquñu ko loolu benn misaal la ci waaye mbooleem li nit ñi dund ci wàllu xew yi xew yi social yi ñuy def ak ni nit ñi di doxale seen seenu dund li feek soppi wuñ ko kenn warta tudd ab état wala ñu tudd kenn naan ñoo sàggan wala ñoo gàtt nit ñi ci seen bopp ñoo jaarul ci yoon woo xam ne mënees na leen a développé am réew ñoo koy yàqal seen bopp ku yàq nag kenn mënu ko mënu koo defar faw mu soppi aw dundiinam ngir mbir ma door a jëm kat ba ca tegu mooy alfasaadu fi lmasuliyaati wal wilayaat yàlla jox la responsabilité muy ab yan boo xam ne bu diis la nga wëlbatiku yàq ko wóolu nañ la ci kees nga yàq wóolu nañ la ci ministère nga yàq jox nañ la responsabilité bu mu mën a doon nga tàmbali di yàq dem nañ ba léegi buñ falee nit dañ naan xamoon nañ ne moos diw sàngam dana ko jox ab cër cër du cër ab yan li sa liggéey ndey li sa ndey liggéey xamal nañ ne yow mii place bu mel nii moom jomb la ah kooku day daal di yëg ne kat moom nekk liggéeyum ndeyam moo dugg ci loxo kon li ci des kay mooy di jël rek droite gauche ngay joxe rek di tasaare muy yàq su ko defee dara du sotti borom bi tabaraka wa taala wax na ko ci alquran nee na wa min annaasi man yujibuka qawluhu fi lxayaati dunya wa yushhidu allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala lxisaam nee na wa ida tawalla su fekkee ne jox nañ ko wilaaya saa fi l ardi li yufsida fiha mu jaar ci kaw suuf si di yàq wa yuhlika al xarsa wa nas wallahu la yuhibu al fasad nee na day yàq lépp ida tawalla borom xam-xam yi tafsir yu bari dañ koo fiiri ne ida tawalla ida adbara maanaam su la wanee gannaaw tàmbali di yàq waaye al imaamu saadi nee na leen ne ci borom xam-xam yi yi gën a xóotal ci gëstu nee nañ ida tawalla dana firi itam su fekkee ne jox nañ ko wilaaya mooy suñ ko joxee responsabilité dénk ko kees dénk ko ministère dénk ko direction dénk ko am réew nee na daal di tàmbali di yàq day yàq lépp lu fa nekkoon ci naataange dafay daal di jóge nee na te yàlla bëggul kuy yàq waxaat na ko nee na fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fi l ardi wa tuqtiu arhamakum wala wa tuqatiu arhamakum ca beneen qiraa ba nee na ndax yéen ñii su ngeen demee ba ñu fal leen da ngeen di jóg rek daal di tàmbali di yàq di dagg seenu bokk loolu kenn ku nekk war na koo laaj sa bopp te dafa mel ni wilaaya muy ak pal dafa doon loo xam ne seytaane daf cee laxasu da ngay ñëw fii ànd ak sa morom yi ngeen di bokk di dugg ak a génn di dugg ak a génn ba mu yàgg am benn responsabilité buñ nekk ci sa kaw nga daal di yëg ne kat ah man kat ñi ma doon àndal démb doonatuma seen morom parce que ñoom ñooy gaa yi nii rek ci koñ bi daanaka man nag léegi nangam laa daal di yëkkati say say wagg daal di tàmbali ñooña sax boo leen séenee teggi leen buñ la doon seet si sax duñ mën a agsi ci yow lu tax mooy bëggoo ñu fàttali la démb ja nga doon dund te daa suufe woon pour yow foofu la yàq gi tàmbale jàpp ne yow bokkatoo ci ñooña àgg nga feneen foo xam ne te yàlla xam ne ne adduna ak li ci biiram adduna ak li ci biiram buñ ko jëloon teg ko ci sa loxo ne la yaa ko moom jëlul soppi lu toll ne tarfatul ay ci sa jikko ak ci sa diini yow ko du dara ay nax la adduna ñi ko xam mooy ñi dem ba xam ne lii luy nax la xoola li nga fàgg ba ba ba am ko tabax nga ay pale yaa ngi ay oto yaa ngi ay soxna yaa ngi ay doom fenn fu nekk dara nga fa lu ñu lii diwa ko moom jiite ay mbooloo jaar fii dugg génn bis buñ ne wàcc na liggéey faatu li nga amoon lépp ñàkk nga ko ci benn seconde li nga amoon lépp ñàkk nga ko ci benn seconde lañ lay laxase ba mën laa dugal ci xabru bi ci tiise yi gën a yomb lay doon basee sax kenn du la ko laxase parce que kon bu cher alal ji ñi nga fi bàyyi kon nga am ci dara waaye perkaal la ñuy wut yoo xam ne mètre bi ñeent fukki dërëm wala cent cinquante francs lay jàpp ñu laxase la ko montor bii nga takkoon du taxaw day continuer di dox waaye keneen a ko moom bi boo gi wàccee rek montorub kenn la ci njaboot gi waaye yow moomatoo ko oto yaa kër yaa jigéen ñi ñenn gaa yaa ngay doxantu di xool ndànk-ndànk suñ summee kan moo leen di jël kan mooy def ndànk yooyu la ñuy xalaat léegi ki xam lii ci kaw suuf mu wóor ko ne ma nga jëm foo xam ne bu fa xasee dugg duutu dellusiwaat fii te fële mu jëm xamul kañ la mën naa doon suba xamul nan la xamul itam fan la yett yooyu xamul ci leen kañ la nan la fan la xamul lépp lu muuru ci kanamam la muy dox di dem li ko wóor daal mooy bis bu jàll bu nekk xam na ne am na 24 heures yoo xam ne jóge na ci aw fan la ca des des ba ba ñu koy wax jeex na nag rek mu ne jeex na ki xame àdduna nii di dox ci kaw suuf buñ ko faloon jox ko àdduna ak li ci biiram du tax mu soppi ko safaan bi sax moo war a am ki dem ba ñu yan ko responsabilité lam doon def ci alali boppam ak lam doon man dafa war a dem ba xam ne moom sañatu ko ndax liñ ko dénk moomu ko yëfi jaamoon la ku ci jàng taarixu Omar ibn Abdul Aziz na mu meloon lu jiitu ñu naan ko yow yaa jiite jullit yi ci kaw suuf ak bi mu demee bañ ne ko yaa jiite jullit yi ci kaw suuf na mu mujj mel sagar yam doon sol na mu doon jeexe jeex takk boo ko gisee xam ne ku tumuraanke ngi te adduna ak li ci biiram ci xeeti alal nekk ci suufam kon nga xam ne adduna loolu loolu la yeyoo yeyoo wut leneen am na ci bokk na ci yàq yooyu alfasaadu fi lmuamalat yàq goo xam ne ci jëfleenteeg njaay ak jënd ak yu jëm ca loola la borom bi tabaraka wa taala wax na ko ci yonente ba ñuy wax Shuayb boo ko yónnee daf ne wa ila madyana axaahum Shuayb qaala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru qad jaatkum bayinatun min rabbikum fa awfu lkayla والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين nee na yàlla yónni na yonent ba ñuy wax Shuayb ca Madyan bi mu dikkee woo nit ñi ca tawxid moom noppee ni leen yàlla day wàcce na ci yéen ay firnde yu wóor muy ay preuve kon fa awful kay la su ngeen di jaayante ni natt na nga natt ba mu mat sëkk wal misaan su fekkee da ngeen di peese na balance yi maandu bu leen wàññil nit ñi mukk dara loo xam ne nit a ko moom nga fexe ba mu dugg ci sa alal bu leen ko def ndax su ngeen ko defee ak yàq lay doon ci kaw suuf si kon ndekete yow miy jënd ak a jaay di peese am na lu la war loo xam ne soo ca jalgatee rek kooku yàq lay tudd fii ci kaw suuf te nag borom bi tabaraka wa taala bëggul kuy yàq ñu bari ci ñuy peese seenu ñàkk a maandu te da cay feeñ poids yi ñuy jëfandikoo léeg-léeg du mat kay natt ca tiisi ba léeg-léeg meetar bi mu yor di ko nattee matul meetar léeg-léeg tiisi bi sax couleur bi mu lay jox yoru ko da nga gis ko dugg ci benn place boo xam ne taal na ba xeeti couleur yoo xam ne tiisi ya nga fay gis na nga defee noonu noonu la mel melu ni da ngay tànn sa tiisi ba jënd ko ba àggal boo génnee dem xool ne waaw xanaa lii bokkut ak bi ma jëndoon fekk couleur yi lampe yi ñoo ko joxoon beneen melokaanu bokkut ak mel loolu lépp ci ab tooñ ci la dugg ci lekk lu newul ci la dugg te ci yàq ci kaw suusee tam foofu la dugg kon mbokki jullit yi yi mat a wattandiku bari na lool bokk na ci li may tuddee alfasaadul am yàq nag koo xam ne dafa dem ba généralisé nga xam ne foo laal rek dara baaxatu yàlla nañu yàlla musal ca googa yàq bu dee pas-pas ya yàqu nañ bu dee jaamu yàlla yàqu na ndax la ca nekk ca ibida moo ëpp la ca yonent ba jàngale woon bu dee ci wàllu jëflante bu dee ca marché ba yàqu na bu dee la nit ñiy dund lépp yàqu na yàqu bu mel noonu nag bu demee ba dugg ci dund nit ñi ba àgg foofa la koy réparé liggéey bu rëy la laaj na njiit lu dog lu laxasaay ci wàllu àdduna ak ci wàllu diine ci wàllu àdduna ak ci wàllu diine ñu taxaw bu wér xeex li ñuy tuddee yàq xeex li ñuy tuddee wuruj lekk alalu état lekk alalu doomu aadama yi dox ci kaw suuf si lekk alalu ka ngay jëflanteel tooñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf di la liggéeyal wala yow mi nekk ci suuf di liggéey ngay tooñ sa patron di jalgati di yóbbu alalam te yëgu ko loolu lépp ay musiba la yoo xam ne ki koy def mi ngi mi ngi yanu loo xam ne ci xeeti bàkkaar ak ci xeeti yàq loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam te nag yooyu muy tudd noonu yu baree baree baree bari la ci suñ société bi lu aaja raxas la lu aaja defar la kon laaj na nit ñi ñu soppi système bi ñu leen di yare ak bi ñu leen di jàngale njàng mi doon njàngum xam-xam bu wér waaye na ànd ak yar su may wax njàng mi nag jàngukaay yépp lay wax muy école publique yi muy daaray alxuraan yi muy daaray lislaam yi fu fa daara nekk fu mu mën a doon foo xam ne ay gone nga fay ñëw di jàng buñ yem ci sol leen xam-xam buñ yem ci sol leen ab xam-xam yàlla xam na ne ki nga xamal ba mu xam te yaroo ko jubbanti woo ko ba mu yor jikko yu baax jubbanti woo ko ba mu yor ak njub moo yées kañ jàngalut ndax mi ngi ay xeeti fànni tappale ak wuruj yoo xam ne jàng na ko ba mën koo teg ci plan yoo xam ne su ko defee dana mën a yàq lu kenn xamul nu mu toll ndax xam-xam baa ko waral te ka nekkoon ci àll ba jàngul xamul dara tappale yu mel noonu xamu ko du ca dugg ñemewu ko sax kon njàng mu ànd takku yar kooku musiba la gone yi nañ leen jàngal nañ leen yar kër yi nañ def seen responsabilité jàkka yi def seen responsabilité école yi taxaw ci seen responsabilité loolu bu ñu ko defee danañ gis ne diir bu gàtt sunu société mën nañoo doon nit ñoo xam ne nit ñu defar lañ su boobaa ku bëgg a tabax am réew bëgg émergence ci lu gaaw a gaaw lay doon ndax da nga koo jaare ca yoon ba mooy tabax nit ba noppi doora tabax tabax yi nekk ci kaw suuf si moo tax borom bi nee na zahara alfasaadu fi lbarri walbaxri bima kasabat aydi nnaas bima kasabat aydi nnaas li yudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjiun nee na boo demee ba gis yàq tasaaroo fépp ci géej gaag jéeri jaag fu doomu aadama nekk fu nekk yàq nekk fa nee na loolu nit ñi ñoo ko defal seen bopp ñoo ko faggu ci seeni loxo waaye nag la cay tew mooy dund bu metti aw tiis ay njàmbat yu bari lu tax li yudiqahum ngir mu mosal leen ba'd alladi amilu li ñu def mu yan leen yan ñu diis fii ci àdduna ndax ñu mën a tuub ndax ñu mën a dellu gannaaw ndax ñu mën a réparé kon daal ci mujj gi ñeenti tomba gi yu mën a bàyyi xel gannaaw ñeenti ponk yooyu nga xam ne waxtaane te nañ waxtaane nañ ko ci biir laaye ji ba ci njëkk moo di ann hadihi alqawaid al arbaa tumassilu ususa binai alfardi wal mujtama ñeenti tomb yi day mooy plan bi nga xam ne moo mën a tabax nit ki mu doon nit ku mucc waaye moo mën a tabax ab société it mu nekk société bu mucc mooy boole li ngay def te am ko nga fàkku ci àllaaxira bañ a fàtte sa àdduna rafetal jëme ci doomu aadama yi wëlbatiku lépp luy xeetu yàq nga xeex ko mu jóg fi ñaareel ba أن تقدم البلدان وازدهار المجتمعات مرتبط بإيجاد توازن محكم بين العمل للدنيا وللآخرة ngir am réew mën a jëm kanam ngir ab société mën a jëm kanam faw faw ñu méngale ñaar ñii muy liggéeyal àdduna ba mu jot àqam nga liggéeyal àllaaxira ba mu jot àqam bu ci manqué rek dara du dox ñetteel la ann min awaamili tamaasuki almujtamaat ixyaa ruuxi altaawuni wa ishaat alixsaan almutabadal bayn al afraad bokk na ci liy dëgëral ab société xam ne bu doonul tabax da nga naan tabax bu dëgër la bokk na ci li koy dëgëral mooy ñu fexe ba dimbalante siiw ci seen biir kenn nag ku ne di rafetal jëme ci sa moroom ca lan ko tanee loo ko tane rek rafetal jëme ci moom moom it lu mu la tane mu rafetal jëme ci yow lii soo amee ci société société ba dëgër ñeenteel ba أن درء الفساد بكل أنواعه هو السبيل لإقامة الدين والدنيا خيخ نياك خيخ ياق خيخ أك ياق أك ياق بمنا دون لولو موي يون وي جيم تي دفر أدونا دفر الآخرة ku bëgg a defar àdduna defar àllaaxira da ngay xeex xeex ak yàq ba kenn yàqatul bu kenn yàqatul rek lépp baax اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين